ci soxa bor soxlaa coow li bari saraxule yi nangu woon nan bu yàgg tey wolof yi nangu njaago yi nangu mandeng yi nangu joola yi nangu ba ci tubaab yeeg sinwaa yeeg naar yeeg yëpp ànd nangul la léegi loolu moom bayra la cangaat la wala alxuraan la wala da ngay xëy di nafar wala lan la daal yaa ngi may laaj bayra bi càngat bi yaa ngi may laaj yooyu yëpp Mm-hmm. man xaw ma si yooyu dara. ah doo seet doo yooyu yëpp sa yoon nekku ci. bokk ma si yooyu tey. Mm-hmm. bokk ma si yooyu ëllëg. yooyu faj doomi aadama yi. Mm-hmm. yooyu laa dem jàng. yooyu laa xam. yooyu laa jëfandikoo. yooyu laa jox doomi aadama yi si ñu ko jëfandikoo. ak xam bi ma yàlla xamal te mu doon xam-xam yi dagan. coow coow li loolu rek la. mu yaakaar boo waxee nii est-ce du jàpp ne nitu ordinaire nga nitu neen est-ce que ay baati nag yooyu jëflanteeg rab li tiital nit ñi. loolu noo koy lijjantee nag ku am rab. lépp loo si àdduna bi bu ñu si seen wax ne sax dafay faj mboolem feebar des feebaru dee kon nañ xam ne amul feebar bu mënta faj si àdduna bi lu feebar dee. li may wax nii yëpp mën naa wax ba téeméeri garab at lu topp loo xam ne jàng naa ko. xam naa leen. Hmm. bu nekk nag am lu muy faj. Hmm. boo nee hmm. rab. am na ay alquran. yoo xamante ne bi seytaane ñemewu ko. kon daal maanaam euh, dangay wax ne maanaam nit ñi du question lu baax moom dafa war a ñàng rek. mën naa seet wicc leer nañ dagan am nga am ci résultat. pompe bi si soxo da ko naw naw lool fonk ko waaw pompe bi li mu wund ci njariñ ci rab nu muy def ki mooy dàq rab yoon xam naa diine dinaa weddi lii. bés boo weddee lii ba ma wéetee ak yow. di nga ma nangul. ak koo mënti doon sa adduna bi nag. ñëpp laa si boole yemal génn ma si kenn. pomp bi ah. di xam ne bii suma tukki. Mm-hmm. moom lay àndal. Mm-hmm. suma doom yi. moom laa lay defaral. saabu bi waaw saabu bi moom nu mu demee. Mm-hmm. yaram buy métti. boo amee liggéey sa yaram. boo dina la guddi. nga amee somni. di rafetal yaram tamit. saabu si soo ko xabat sawda moo gën bi nga doon sangoo te boo ko fi bàyyee moo gën ba ngay sangoo ci. kon kër gu ne xale yaag mag yaag ndaw ya nan fexe ba saabu yi moom bu leen bokk bu mbokk sax yi ni raxase ndab yi parce saabu bu laaj quartier bi mm-hmm. Bayram mm-hmm. mu ëpp garab yëpp fii mm-hmm. am naa soixante quatre-vingt-cinq produits mais secret secret góor ñi jigéen gaaw góor ñi ko tax a jóg góor ñi tax a jóg ñi xam seen kattan daa wàññeeku si si mitan tegtal ok kon bii góor bi mitan tegtal góor buy gaaw a yegg koo xam ne que maanaam buy sëy sëyu comme ni Balla gay di bëree lay bëree gaaw bëree rek jóg fa tëb gonalu ko bëri Lac de la bëgg waaw bii mooy secret jigéen jigéen bi pour bu dul yi am na jigéen ñu bari na duñu yëg bànneexu sëy de. bii moom loolu la ko tax a jóg. loolu la ak ñi du am soow. ñi du ak ñi am problème biir yi métti. problème biir ak règle du yëg. bu dul normal ak buy retard ak yëpp. ak buy bëgg ah, jigéen ñi bëgg kii daal. waaw am fu ñu bëgg a yokk seen yaram. sa xabar soda li moom duy tërikaas te nekkoo fi maye dédicace te li nga fi wane moom mooy laas président de la république mel nii ci yow. Mm-hmm. mais li mu bëgg xam baroom yi yaa ko doon décoré wala moo la doon décoré. baroom man maa ko doon décoré décoré naa juróom benn président Afrique. man. la ilaha illallah ñëwoon ci njëriñal pat bi. pat bi. waaw xam yi pat yu bëri dafa am fluoride. fluoride ni muy lor si doomu adama ñu bari xam nañ ko. bu la neexee tijjil sax ñu xool waaw. waaye ñun suñu ngarab bi suñu pat bi. def dara si xel doomi aadama. mais yow noonu ngeen di jëndee euh, waa bitim réew nu ngeen di jëndee par GP lay doon. man dama yóbbu par conteneur. par conteneur dama yóbbu par fret. ndax man dama ko jaarale si yoon. Mhm. damay dédouaner. damay fay douaraay yëpp. sama bagage door ak Europe. waa Rasulullah kii daal du ku ndaw du kuy daw àndul ak kuy tooñ te tamit njëriñal kese lan xam ci moom. bii Dubaay laay dem euh, Dubaay ci remise de diplôme ya ah. maanaam foo xam na que foofu moom daanaka boo fa gisee ku ñuul rek moom mii toog la ay kàngam la ko seqal ay ponkal kii du ku daw de maam ponkal yi la ko gis nga fa mi fréquenté boo fa doy kon di yolaat sax mën ngaa riis kuñ daw la xaalis sox koo la waxal kuñ daw la ndax ñi dégg daaj la ni waxal moo tax ñu am ko du ku ndaw mii noonu parce que bu doon peese wu kilo yi du bari noon xam si xam-xam sax waaye lem yi lem hmm. consommation locale consommation locale kër rasul man daal sa faj li ci neex moom ay weex yooyu ngay naan di kii neexaay gi moom moom moom bu dul dara bii daal kon sëqatkat yeeg sojkat yeeg yëpp noonu mën nañ ko utiliser seen ab xeer moom lu muy dox ci lu mu dox moom day nooyal karaw wala da koy ñuulal wala da koy guddal waaw da koy ñuulal kukk gaa yi ndaw yi ñaar ñi dama leen di boole da nga leen naw loolu tan tuuti ñoom ñaar kii bii bopp bu métti bopp buy metti bakkan bu fatt bakkan bu fatt bopp bu diis suñu zig sa bopp bi ñu métti métti jindi tamit ñemewuñu ko bii pour diw la bàyyi leen diw tubaab bi euh, xeesalkat yi ah ñëw leen fii da ngay leer teint bu rafet bi la yàlla jox. xam baax a baax sama liggéeykat yëpp ñëpp ñu leen diw. ñëpp mu leen diw moo tax na gisuma fi ku ñaaw de wala. <laughs> barke rasul lu ne fang kenn du ko jeex xaw ma damay yëkkati sëriñ si xaw ma damay siiwal sëriñ si xaw ma man daal lu baax laay wane te lu baax laa fi gis te lii nii mbooloo mii lu ne fang nangu ñëpp nangul la léegi lii lii moom nu mu demee lii moom bu xaalis koy maye moom. jéem ma respecté doomi aadama yi xamal ne noo mënta mel clients yi ñooy roi yow toujours da nga gis si suuf président Allemagne bi ñu ñu ñu wane ko wala de jaru ko président Allemagne bi boobu baroma ma présenté ak moom ndeysaan euh, Anzali Gok <laughs> voice euh, présidente allemand ne li nga jot a wàññi ni na bàyyi bi beneen mu nga wane boobu kon daal si soxo def résultat rek a wóor si soxo du leen faj de yàlla moo leen di faj mm-hmm. def leen seen yaakaar si yàlla jël sababu lu bi ngeen fajo si yàlla may la ngeen wér